sunu gan Cheikh Salam euh, salaamaaleykum. aleykum salam, Seigneur Babacar. kinésithérapeute nga euh, jiite syndicat Ben, ci yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi te yëngu sa boss, bi nga jiite mi ngi SDT 3S mana syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. mbas meek ni mu jógaatee ci réew mi fan yi bokk na ci li ñuy waxtaanee ñu njëkkee ko sax hmm. est-ce que. Euh, li ñenn ñi njort ne fi ñu toll nii euh, matuwaay yeeg jumtukaay euh, noppeegul gérer ni yëf yi jebbiwaatee est-ce que yow mi ne ci biir mën nga ko firndeel walla jarul garaawal. Babacar maa ngi lay nuyu di la fay di la remercier ci invitation di nuyu élage Hadj di nuyu auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan di nuyu aussi liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk waa Kër Docteur di nuyu waa Tivaouane parce que démb fa laa nekkoon ci benn assemblée général bu mag. parce que ay minuit lañ ñibbi si fii leen sargal di sargal képp kuy liggéeykat mais di wax ni aussi SDT 3S syndicat boo xam ne dafa affilié wu ci CNTS FC pour dellu ci di aussi liggéeykatu waa hôpital général de Grand Yoff parce que nous sommes tellement ma représentant du personnel euh, li ma mën wax ci euh, question bi nga euh, difficulté yi nga peut-être am c'est-à-dire gouverner toujours man li toujours prévoir c'est-à-dire que malheureusement parfois dans nos pays dañuy toog di di gérer li le quotidien alors que nous nañu une politique de santé politique de santé boobu mooy permettre nga jël euh, globalement non pas gérer la maladie mais gérer la santé gérer la santé nag dafa commencer même ci prévention ak loo xam ni nga manam bu ne prévention lo xamni ñewugul donc yooyu yëpp élément la bon gis nañ ne aussi bi mbass mi demee sérieusement euh, le président de la république amna lo xamni xam ni génn woon na ci 64 milliards bon mënu mo wax ni euh, ministère des finances génné na lépp wala léet amoon na en tout cas rallonge et je pense que fu nous demander rallonge ça veut dire que la fa nékkon jeex li ñi poser question kay mooy euh, tey waratu waratuñu am ben lay ben lay man pour man ben lay pour wax ni amna lu manqué parce que nag kilifa boo ñëwee nga ni ko lii ñëw na euh, jox ma ay moyens mu ne la euh, euh, moyens yi ma lay jox bañu ma ci bañu ma ci dara parce que man dafa dama dafa am loo xam ni làmminam la ak sama nopp parce que dama tew mu woñu ci ben rencontre niñu ñu fi mu toll ni waxuma la mbas mi mais lepp lu jëm ci système de santé euh, wax leen ma lan moo ko mën a saafara bu ngeen waxee leen moo ma ko mën a saafara même bu nekkul fii dinaa ko dem uti defe naa ni kooku euh, def na la mu waroon def. léegi la mu waxoon ak fi yëf yi toll ak melokaan yu mu am. Mhm. système bi jumtukaay yi ak matuwaay yi. Mhm. est-ce que euh, lépp nekk na en place pour mën a gérer li nga xam ne moom la ñu dund fan yi waaw xam nga ñoom ñoo la mën wax ndax en place parce que je vais damay jox benn exemple xam nga tey jii bu coronavirus capacité de l'île, la xam nga am na question bu est-ce que le personnel sanitaire est préparé j'ai dit le personnel sanitaire est préparé ils ont été formés et n'est pas pour la première fois ñu gérer gérons épidémie man nekkoon naa ci zone boo xam ne fekk naa fa ñaari épidémie yu yu méningite fekk a fa benn épidémie bu bu rougeole à Tamba te li nu rey defe naa ne reyul fii donc képp kuy agent de santé ak foo mën a toll préparé nañ la ci épidémie te defe naa ne épidémie bi sax taux de létalité bi moo gën a faible li nga xam ne méningite daan na ko rey wala ay ay rougeole ak affaire noonu li ci des nag peut-être euh, question nu muy aggravé wu la tey jii bu li bu ñuy wax lu ci bëri ci fièvre bi peut-être ci cas yi nga xam ñoy cas grave yi la tay wax nañ leen ni Sénégal gi yépp malgré li ñu wax ñoom dugal nañ ko ci ci ñi nga xam mo nek ay li chauds ñi nga xam ne tey bu bu bu fekkee ni nit ki fay soxla assistance parce que dootul mëna ti bopam ci ay juróom fukki lal la te gis ngeen ni fan yi cas grave yi ñu ngi yok ñu ngi nek ay ñaar fukk ak ñaar ba dem ba fan fanweer ça veut dire que bu ñu dépa bu ñu dépassé 50 rek day am saturation day am difficulté maintenant benen bi ci des aussi moy capacité de lit xëñ nak amna malade yo xamni ni traitement à domicile bi doon def mën nako wara war continuer parce que amna ño xamni peut-être mën nañ développer mën nañ am maladie bi mais du grave grave bo xamni ne mën nañ mën nañ toog seen kër mën jël ay ay ay garab mais lo ci gis sax mën na mën nañ ko wara a mën a mën prévenir pour pouvoir le faire donc man sama xalaatu euh mënu mo wax ni euh,

donc il y ci ci ci ci parce que ku gis li xew France ku gis lu xew xew États-Unis bo inquiété wul té dañuy dal xel ni que ne du du mais situation bi lu lu lu et on a des raisons d'être d'être inquiet waxna la fu cas par jour hmm? Hmm. en moins de 10 jours c'est presque 1000 cas or regarde les capacités de lit. je ne parle même pas de lit pour Covid tey jii hôpital bi la fi gën au Sénégal à Dakar a 450 lits te su ma 450 lits euh, spécialité yëpp la ciy c'est-à-dire maladies yi am trauma orthopédie dañuy am lal maladie nga xam dañu nekk problème neurochirurgie dañuy am lal ñu nekk neurologie dañuy am lal ñu nekk maladie infectieuse dañuy am lal ñu nekk ORL pneumo yooyu yëpp c'est-à-dire ñooñu boo leen boolee mooy 450 lits pour benn structure sanitaire donc tu as dit, ci tu Covid bi Covid bi kessé lañuy le amna ça veut dire qu'on a des raisons d'être inquiets est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui nos structures hospitalières sur le plan de la capacité d'accueil, amènent bu amé débordement par rapport au nombre de malades je ne le pense pas Je man et wax nañ ci du lañ yàgg nañ ci wax et nañ ci continuer di wax capacité yooyu defuñu ko mais nag bon xëy na nit bu assez am benn effort bu mu def aussi faut le reconnaître j'ai remarqué depuis vingt ans musuma gis ñu inscrire ci budget de la santé construction hôpital te gis naa ni def nañ ko actuellement à Kaffrine def nañ ko à Kédougou def nañ ko à Sédhiou et loolu ñun dañ koy saluer parce que loolu dañ voilà dañ ak ak Touba hmm. xam nga mais dañ ni loolu lu baax la mais tey jii boo fekkee da nga construire hôpital dama koy wax toujours du bâtiment parce que je concevoir a 500 nga euh, plan stratégique pour les cinq prochaines années nga jël 500 euh, et quelques milliards sur les 500 et quelques milliards nga jël 300 et quelques milliards nga def ko or le personnel bi nga wara former defulo ci sax même 8% day garaaw te matériel bi ñëwagul. matériel bi ñëwagul non matériel moom dalal jàmm gi ci géejuwaay ba mu pare yàgg na. Mhm. waaye am na ay bâtiment yoo xam ne matériel ba ci war a dem newu ci ba léegi. non même bu dul matériel sax activité am na activité tey jii ba jàmm le service d'urgence ne fonctionne pas hôpital bu ñuy wax service d'urgence moo tax ñu wax hôpital bi depuis ñaata at la depuis Ablaye Wade la woon ba tey. tey jii hôpital ba am na équipement dafa am loo xam ne sax man yaakaaruma sax état mën na ko mën na ko mën a def tey jii gis nga fi ay ay clinique ñaata clinique ñoo fi nekk yoo xam dañuy investir IRM rek un milliard lay jar bu dee doomu aadama dans le privé moom moo mën a jël initiative installé IRM bu un milliard waxuma laa koo xam ne jox nañ ko c'est-à-dire. ñu ne moo taxit saf na sàpp ci askan wi de. waaw non non mooy li ma lay wax c'est-à-dire mm. que aujourd'hui malheureusement loolu moo nu tiital parce que de plus en plus dañuy privatiser contre ma kenn mais tey jii damay remarquer ni. le privé même est en train d'entrer dans le service public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne le, détourner son maladie au niveau du service public xam nga tey jii bu ñu demee bu ñu demee bu njëkk mais loolu responsabilité personnelle bi la parce que day gis koy liggéey fenn non au lieu nga faj ko nga moom laa la non non man man man man man défendre ma loo défendre ma kuy def loolu parce que nous nous avons choisi le service public malgré les méga salaires et pourtant métier la ñu am boo xam ne tey jii bu ñu demoon dans le privé on peut percevoir cinq fois li ñuy am dans le service public mais ñun ñoo choisi service public mais tey jii da ngay dem ba ci benn hôpital gis naa benn hôpital barki démb jamais dans le passé nous autorisé autoriser pharmacie privée nous construire un hôpital c'est-à-dire officine dafa une distance bu mu séparer hôpital parce que l'hôpital bi une pharmacie pharmacie est gis ko fi hôpital nga en face def nañ fa unité de alors que c'est une unité d'imagerie ni qui fonctionner c'est-à-dire que même le privé est en train de concurrencer le public kan moo koy favorisé, c'est des questions qu'on doit se poser man suis may ragal dans li dal enseignement dal santé cest à dem ba léegi yow sa doom doo ko nangu dugal dans l'école publique ci école privée nga koy dugal parce que moo gën bu ñu demee ba loolu nekk santé ça serait extrêmement grave aujourd'hui on doit défendre le service public et défendre le service public ci ñun la commencé d'abord ñun agent de santé de faire en sorte aujourd'hui offre de service bi ñuy jox euh, maladie ñu mën leen ko jox mu nekk lu correct en même temps ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey néew kenn du def privé mais au moins li li la warloo ak service public na nga ko def correctement avant de passer au au au privé mais aujourd'hui mooy li ma doon wax sànq ci problème formation peut-être euh, mañ ci delluwaat si bâtiment bo bâtiment nga construire un bâtiment de 1 milliard ci un bâtiment 1 milliard boobu nga construire amul le personnel technique arrivé nañu ay temps ñu ne dañuy lutter contre la mortalité maternelle ñu ne dañuy créer ay sous soins obstétricaux d'urgence ay blocs opératoires muy ay Goudiri ay ay Vélingara ak mais gis nga bi construire xam nga équipe équipe bu opérer day am instrumentiste day am chirurgien mais day am anesthésiste day am laboratoire pour analyse day am service de radio, loolu lépp day am mais su fekkee da nga construire suuf yooyu nga dem lebi xaalis ñu jëf ay milliards nga construire bloc opératoire alors que amoo anesthésiste c'est-à-dire ki war a nelawal malade soo amee ñuy opérer équipe bi lu mu ngand ngand ngand ngand aussi ça ne sert absolument rien c'est comme une équipe de football nga da ngay football am nga ay attaquant am nga ay milieu terrain mais amoo góol da ngay jël ay but yu bëri loolu moo nuy dal maintenant moo mané la c'est les ressources humaines le problème majeur du secteur sont les ressources humaines tey jii anesthésistes yi ñuy wax réanimateur ça fait 3 ans fi Sénégal ubbi wuñu concours formé wunu or on avait un déficit énorme léegi école privée yu bari ci dëkk bi nak naan dañuy former ay fajkat. mais kan mo len ubbi ak kan mo len autoriser c'est ça la question. li mu bëggoon laaj sax moy ñom sen formation da baxul non waxuñu waxuñu waxu ci formation dafa dafa baaxul mais xam nga boo ubbee rek. baali dal journaliste yi dalu leen. Ah, fu ne école ne fa rek non Babacar dama la man dama la man damay dem damay dem hôpital. Euh, bon ci ci domaine médecine physique lay def quoi rééducation parfois dañu am ay malades yo xam dañu nek tétraplégie wala paraplégie ñu ñu paralysé mais dañu leen defal sonde. benn jour dem naa parce que dama doon jël malade hospitalisé dans un service j'ai trouvé des étudiants parce que j'ai demandé au major parce que dama ñëw fekk sonde bi baaxul j'ai demandé au major de mettre en rapport un étudiant de troisième année infirmier d'état Je nga bi ma ma sonde mais cette personne m'a dit que je la musu la sonde et peut-être que mën diplôme ce c'était pas pour la première fois Il faut que je sois fu école privée. non je école non Je stigmatiser xam nga su c'est une école privée ak leneen c'est-à-dire école publique amatul Je suis dama une école publique amul demal ENDSS actuellement munoo wax ni population 15 millions d'habitants habitants nga am nga ni da ngay former ay infirmiers. li ngay wax ni grave na de fu mu ñu la vérité. C'est la at moom. dama lay wax xam nga ñaata ah. infirmiers former actuellement à l' en première année. 5 personnes 5 infirmiers est ce que yow ñeme nga dem école de police nga ni damay ubbi concours de former 5 alkaati yi est ce que nit am na fit boobu tay nga mëna wax ni bëgg santé sénégalais ba paré nga investir 500 milliards ma ngi def couverture maladie universelle 500 milliards yooyu ban vous la am bu féké ni amu infirmier yoy formé c'est-à-dire l'État ne peut pas se dérober la responsabilité diko confier à des privés c'est ça qui n'est pas normal la santé l'éducation la sécurité c'est des domaines de souveraineté on n'a pas le droit depuis 1994 là la wax batay 94 moy dernière promotion bo xamni bo ñu dans la fonction publique depuis 1994 batay tey régime bu fi jaar bo xamni au niveau des écoles de formation publique de santé dañ la ñu jël dans la fonction publique amul. c'est très sérieux dama la 94 xam 94 légui ñaata at la. ça fait plus de 26 ans 94 la lay wax y a plus l'automaticité Nous, ñu koy nu ñu koy jox police lañ koy jox gendarmerie mais la sécurité c'est d'abord de ne pas tomber malade Ce n'est pas uniquement ça qui nous nga koy nga parce que le le le le le policier lui-même si hein, su gisee euh, euh, euh, nu mu ennemi bu ñëw di ko song il a na arme te dina avec ses yeux mais vous pensez que ni l'infirmier le médecin dina gis le microbe à l'œil nu donc il faut donc la sécurité commence c'est d'abord la formation le le le service public de war a delluwaat fa mu nekkoon et am une capacité former sans infirmiers à l'INDC chaque année ba pare état bi wax ni da koy dans la fonction publique. ñi lay déglu ñi lay déglu ci li ngay wax. non non non ñun ba ñu du c'est la vérité li ñuy wax inventé un ko Demain, INDC nga xool cinq fa nekk li gën a grave. Moi, ñi nga xam ni sax am nañ diplôme démb à on la fa laa nekk ba presque ay 22 heures dama ni la ci ñima rencontré moi ICP les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes C'est presque poste de 90 de santé Ils fa nekk yëpp ah ña l'Assemblée ci assemblée générale ba ñëpp ah ñaar ño ci fonctionnaire ça veut dire que ñiy diriger ñiy diriger nek infirmiers chefs de poste poste de santé ak sages-femmes ya fa ay contractuels am na def nañ presque ay dix ans té contractualisation c'est du contractualisation sax même ministère de la santé ay CDS c'est-à-dire comité de santé ño ci ça veut dire que mon IPRES à mon caisse de sécurité sociale doo verser dara à tout moment mën nañ la daax non non dama lay wax li gën grave mooy hmm. mooy ñëw nañ c'est-à-dire dañuy ñëw suñu système ñoo xam ne duñu agent de santé duñu médecin duñu infirmier duñu sage femme ñëw accaparer wax ASC yi non moom foofu laa jëm hmm. gis nga ñooñu dañ leen di xeeb mais tout le système lu ci ëpp ci ñoom lu repose agent de santé communautaire exactement hmm. dama lay wax Babacar man da ngay da ngay dem man man nekkoon naa Tamba tey jii mënoo nekk ci poste de santé nga bugg a def consultation ba pare ñu ne la da nga war a am taux de couverture vaccinale de 80, 90 alors que bu dee fii Dakar la di nga gis koo xam ne moom mooy jël doomam yóbbu ko mais àll bi doo am ku dunu ñëw te da ngay polariser 80 villages. mais tey jii boo amul ñooñu muy matron yeeg ASC yooyu la yooyu la encadré pour nga mën leen pour nga mën leen former ñu jàppale la ci vaccination doo atteindre 90%. pour cent mais temps yi lan lan def doon toog ba ci yàgg ñooñu ñu leen doon fay tey SMIC dépassé na presque 50 000 mais tey da nga ñew ñu ñu gis ni xaalis nous nga dugg ci structure ñu dem changer CDSI, yi CDS yi bi ñu defee CDS ne bu njëkk dañ daan jël ci recette globale y compris les médicaments ak même bu ñu ko waree sécuriser je suis d'accord que ñu sécuriser médicaments ñu jël benn taux de pourcentage fay mais ñun léegi dañuy dindi loolu lépp ba pare ci recette ticket rek la leen di fay da nga gis man dem a même pas un mois dem dans le Matam gis nga quand je suis arrivé j'ai vu belle situation bu grave bu ma fekkoon foofu parce que quand j'étais à Agnam on a appelé l'infirmier chef de poste niko ko na abal sen chauffeur ambulance pour mu ñëw jël si malade bu ñu war évacuer bu nekkoon tay ba ngeen man le xana amu ambulance j'ai dit à l'ICP xanaa ñoom amuñu ambulance mu ne am nañ ambulance mais ambulance bi euh, chauffeur bi nekk fa ma ko mais chauffeur fu fu fu fu mu dem ñu ne ñu ne non chauffeur bi hein, amul salaire donc mom bu amé ku ci village bi ko xamni dafa bëgg dafa bëgg tukki am auto bu ko dawal day dem dawalal ko les ambulances baa nga fa paanul mais mënuñu évacuer malade malades. on demander un poste pour mu pour évacuer malade ça veut dire que nous jii ñu ngi la la la la territorialisation Aujourd'hui, si bu ne 500 collectivités et quelques on ku ci nekk na jël chauffeur fay utal ko contrat djel ben matron fay ko utal ko contrat ñu né chaque année di ko def dans di di ak cinq ans je pense que dinañ absorber ñooñu te gis nga stabilité. dem naa dem problème bi aussi moy problème privé dem mm. euh, démb rek ñu ngi dégg Ziguinchor. Mm. kat yi nekk fa di laaj ay prime de motivation ñu leen fayul bobu légui euh, si contexte bo xam te ne nee 64 milliards. Mm. président génn won nako ngir xex ak mbas ak yoy est-ce amul ben waro bo am xaliss bobu fan lay dugg. non man man xam nga bu répété waat rek question est dama ko njëkk pose. parce que dama pratiquement 64 milliards si ce n'est pas le tiers du budget du ministère de la santé c'est le quart du budget nat kañ lañ ko consommé en moins de 6 mois donc c'est la question qu'on se pose lan lañ ci def alors qu'avant, on n'avait pas ces 64 milliards on gérait plus d'une trentaine de maladies ou d'affections c'est que loolu tamit insisté au ci ministère de la santé hum. ni mu dit xaalis bi tamit xaw naa gaaw bah motax tax la xam nga xam nga kérok waxna ben journaliste sen mbokk bu may wax mu ne ma bon gouvernement bi légui mi ngi communiquer chaque 15 jours man la communication gouvernementale du wo journaliste parce que amna lo xamni xam ne c'est technique ñun ñoko mëna wax. gis buñu défé dañ lay def comme ni m'excuser de faire la publicité membre Ibra lay def l'affaire de la cité xam nga dañuy tok ñu wo ñëpp population bi tok képp ku nekk ci domaine bi bu boobaa dinañ ko poser question yo xamni de ci mëna a tontu wala mënu ci tontu lolu mo gëna a leer su fekkee ne askan mo leen tax pas les journalistes parce que parce que li li man man dama gis ni genre propagande la quoi mais du question leeral pëndal pëndal la c'est bo boo bëggee leeral ah, nan ñu woñu tok xam nga ñom ñoo gérer système bi dinañ leen génneel loo xam ne duñ ko dindi ñun loolu lañ lañ wax et je le dis toujours bu ñu bëggee aider le président de la république ah nit ki du tok mu ne lu ngeen ma laaj naa leen jox ba pare ñun ñu bugg a jiital suñuy intérêt bopp au détriment de l' intérêt des sénégalais parce que le président il est là au service du peuple ñun ñoo ko fal ñun la wara a liggéeyal tey dafa am ñu mu wóolu jox leen ñu mu wóolu jox leen il doit faire en sorte que li mu leen jox ñu teg ko fan ko war a teg et loolu mooy li nga xam ne moom mooy li normal te dafa warul mën a continuer Vélingara dem naa fa la comme li ma leen di wax sànq temps yële c'est la même situation bu nu am au niveau des matrones gis naa ci matrone boo xam ne na depuis 30 ans mi ngi nekk matrone mosuñu ko recruter mosul am benn contrat te matrone bo ñoom ñooy fanaan ñoom ñooy fanaan foofu sage-femme bi toujours du fa nekk donc, nous devons régulariser la situation de ces personnes. Si l'État ne peut pas les absorber tous, au moins une partie, nous pouvons les absorber par les collectivités locales. Une ben maire, si vous recrutez un matron, vous avez un contrat. Le contrat, c'est le contrat qui li nga xam ne moom la par le code du travail Ce n'est pas uniquement de lui donner un salaire xam nga te lu ça permettra à la personne de mën stabilité parce que xam nañ ñun li ñuy appuyer un nekkee ci poste de santé nga nekk un infirmier poste de santé bi am nga chauffeur am nga am nga am nga dépositaire pharmacie am nga matrone am nga agent de santé communautaire bi nga xamne mo lay defal soin yi ñooñu ñëpp li ñuy coûter bi ñu defee li la doon wax lool ci CDS yi ñu wañi lool lepp bi ñu leen calculer bi ma demee poste bobu lima la doon wax dans le Matam certaines personnes s'étaient retrouvées à la fin du mois avec 6000 francs est-ce que mën nga concevoir. Hmm. ko xamne day fananal di yendal nek maire euh, nek nek borom kër hein nga ñëw fin du mois. nga naan di rewlé di rewlé nga naan 6000 francs nga koy fay dama ne leen li dangereux nekkul foofu c'est-à-dire kooku yaa ngi koy poussé mu détourner maladie mu sàcc leen c'est-à-dire kooku yaa ngi koy poussé muy jël ay produits di ko piqûre nit naa leen fay ma poste et loolu c'est extrêmement dangereux et on les expose il faudra que ñu xoolaat le système de santé du management le problème majeur du système c'est le management du secteur de la santé hmm. beneen bi ma bi bëgg wax aussi il faut éviter que ñuy frustrer nos cadres du système il y a beaucoup de professeurs qui aujourd'hui ne veulent que servir le système am na ñu bëri danoo mel ni et ça deviendra très dangereux si on ne prend pas en compte secrétaire général syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social SDD 3S